ñu daal di tournel fii ci rond point Gàddaay donc dinañ xool marchandise bi fu muy jógee dinañ xool risque yi euh, avantage ak inconvénient yi nga xam ne moom lay daal di dund euh, ci li nga xam ne moom lay jaay parce que ñëpp xam nañ ne nag vendeur à la sauvette nekk na risque nekk na métier bi nga xam ne c'est dangereux parce que tey ngay jël say marchandise di dàkke ji oto yi di jéem a jaay donc loolu c'est c'est c'est très très dangereux mais lépp li ñu buggoon xam rek tey dinañ ko daal di xam ma ànd cette complicité sama doom sama xarit moom laa ànd ci émission bi euh, bu baaxee rek nee ni tuuti danga may daal di accompagner ñu daagu ndànk dem ci Ibrahima xool nu mu toogee. voilà chers téléspectateurs de la 7TV comme ni ma leen ko waxee sa njëlbeen ba ba may ibbee nee leen tey nag dama daal di seet si ay jeunes yi nga xam ne ay jàmbaar lañ fi ma toog ay xale rek a ma wër ay xale yi nga xam ne dañu daal di am jom lool ay xale yi nga xam ne ah, boo déggee góorgóorlu ñoom ñoo tax ñuy wax ah, donc euh, d'habitude da ngeen di gis ah, góorgóorlu dama koy tourner at benn nit kese mais cette fois-ci at groupe laa koy tourné parce que tey fi ma ñëw euh, groupe de personne yuy liggéey la nee naa leen souvent boo leen déggee ñu ne euh, vendeur à la sauvette da ngeen di foog ne mango la ñuy jaay wala orange wala limon wala et cetera mais cette fois si vendeur à la sauvette bu raar la parce que ñoom li ñuy jaay euh, mooy jën di dàkkante at at li nga xam ne mooy oto yi di di di jaay di daan seen doole amoon ah, doog fii nag at Cheikh donc di porte-parole ñi nga xam ne ñoo fiy jaay ah, donc dañ koy daal di nuyu Cheikh nuyu la. Euh, salaamaaleykum soxna si noo def maa yaa ngi si jàmm bu baax waaw ñu ngi leen di dalal ak jàmm fii ngeen ñëw muy rond point gàddaay mu doon foo xamante ne lii la boo xam ne dañ fiy jaayee jën ñu ngi leen di dalal bu baax a baax a baax. c'est toujours un plaisir cher donc ça fait combien de temps yéen a fi. waaw koy xool man moom euh, euh, bokk naa si ñu fi njëkk parce que fii def naa fi quatre ans. quatre def naa fi quatre ans waaw kii moo ma jàngal métier Mansour. boole gaa yëpp ñëw fii nii yàgg nañ fi daal waaw fii la ñuy daanee suñu doolee pour lu ñu jot jaboot gi ak lu ñu la wut waaw. depuis quatre ans bokk nga si ñu fi njëkk a ñëw euh, donc si je ne me trompe pas Mansour at yow yéen a fi njëkk a ñëw parce que moo la jàngal métier. Mhm. Mansour mooy ku sol waaw moo ma jàngal métier. jàngal ma ni ñuy ni ñuy defee jën moom nag moom moo fi daan taxaw boobu bi mu fi taxaw bu fi àll la woon. waaw mu njëkk fee taxaw di fi dàq wërsëg ba après ñuy yaatal di yaatal ba instruire ay ñëm mbër ndaysaan ñëm ñëw ñëm Ibrahima mais koy xool moom si bopp bi la moo jàngal ñëpp fii liggéey waaw ñu bari si formation am lañ jaaree si jën. est-ce que c'est facile nga ngay ngay jaay ngay def vendre la sauvette maanaam sa jën dàq ji at oto yi. waaw fii daanaka loolu la ñuy def moom la ñu commencé de huit heures jusqu'à vingt et une heures waaw di daw rek si tali bi duñ taxaw amul arrêt. waaw te nu ne lañ fi jànkoonte vraiment. 8h ba 21h. 8h teel na 21h gudd na guddee na donc est-ce que des fois doo leen fi euh, jànkoontoog ay ay insécurité parce que bu ñu ne gàddaay quand même euh, fii dafa mel ni euh, léegi sax commencé na am ay kër mais depuis 4 ans quand même àll la woon est-ce que des fois doo leen fi dajeet ay affaire agression wala truc de ce waaw fii moom loolu bari na fii dañ ko fi dañ ko fi jànkoonteel mais. pour euh, affaire agression yi dañuy dañuy dañuy jéem a ñëw parfois si ñun parce que man mës loolu mës na ma arrivé nit mës na gis ma yor xaalis nii di wàññi mu gis xaalis mu dem ba bëgg maa ñëw di ko këf mais nit moo si jàpp waaw yooyu dafay am yu bari ay da ngay teg sax say say jën yooyu ñu ñëw jël ko sàcc ko sa yaakaar tas yooyu yëpp da si am fii si marché bi waaw sa yaakaar est-ce que des fois euh, ba ñu ñëw gis nañ policiers yi taxaw fee est-ce que euh, policiers yi aussi dinañu jouer rôle bu am importance si waaw policiers yi dinañ ñëw fii jouer rôle bu am importance comme tey jii nii foo xeex amee fii wala nga gis ki ñaari nit xam nga fii dafa doon foo xamante ne marché la. am na tamit ay waas waaskat dañuy yor ay arm wala yooyu te marché lieu de marché day doon lieu boo xamante ne parfois euh, xol yi day jóg. kon ay nit suñu jàppante yor ay paaka yooyu ñoom da ngay gis dañuy bàyyi seen yitte yëpp daal di ñëw fii pour garder insécurité bi. parce que loolu dafay faral di am parce que groupe de jeune groupe bu xale quand euh, du ñàkk ne euh, euh, seytaane des fois moom mu dugg seen biir xool dugg seen biir donc est-ce que des fois dafay waral kon que tout le temps da ngeen di yore li ngeen xam ne mooy arme blanche. ay histoire ay xeexoo kon ko yow yaay perte porte parole bi am na njiit bu fi nekk est-ce que des fois loolu bu fi amee di am euh, euh, facilité pour calmer les parce que xale bu ñu tolloowee rek euh, ku nekk da ngay diñante sa morom mbagg da ngay jaay ne maa ëpp doole kii est-ce que loolu dina yomb pour ñu calmer leen. waaw dina dina yomb pour calmer parce que fii tamit dina metti lool loolu mais fii dina am koo xamante ne comme kilifa gi ma la wax ne moom sax jour moom moo fi njëkk mais moom dina demaat dawal réaction ndaxtaan a gars yi waxaat gars yi mer gi du yàgg deux jours après nit ñi dañuy nekkaat si jàmm xam ne du dara tamit saytaane moo jógoon. en parlant de ce kilifa la boo leen déggee ñu ne kilifa da ngeen di foog ne mag la ba tey ñoom ñëpp ñoo bokk génération apparemment yow yaa fi jiitu avant may ñëw si loolu sax bàyyi nga nuyoo nga présenté wu. waaw salaamaaleykum maa ngi leen nuyu ku si nekk ak santam di leen nag lii ne dalal jàmm fii nii. tur bi nan la. Mansour Cissé la. Mansour Cissé moom moo fi jiitu moom moo fi kilifa moom moo tax également xale yu bari daal di ñëw ah, Mansour euh, naka ngay euh, amee facilité pour cerner c'est-à-dire dama bëgg nga jàkkaarloo sama caméraman ah, donc naka ngay amee facilité pour cerner xale yi maanaam ah, problème bu amee naka ngay def ba ba ñoom ñëpp ñu dal parce que yow it kilifa nga mais yow yow yaa yéen bokk génération. waaw fii de moom wax dëgg yàlla. du ñàkk président am am fii ne ay jàppande mais bu jàppande ba kon lu ko seex waxee rek ay deux jours trois jours ñëpp delluwaat si jàmm. bañ na ko ba fii nii ba cool yi bëri histoire bi bërante ñaari commandant yëpp ah, dañoo jël benn lii nii mesure boo xamante ne ferme instant bi nii. ndax fi ndax fii ne daanaka chaque deux jours ah, ñu fayaloon nit ay vingt quatre mille vingt quatre mille si ay si ay xeex rek. say xeere mu commandant bu nekk fii nii yëmbal wax naan bi ñun ñëpp état bi néew dañoo néew fii nii ku fi xeex xeexati bañ bañu bañu dem foofu noonu dañuy interdit marché bi waaw kon nga war a xam ne fii nii amul woon jàmm mais instant bi moom depuis ba gars yi waxee lool moo wax dëgg yàlla ah nit ñaa ngi dund si jàmm mën nañoo xulloo xulloo ni mais kenn dootu xeex. xaalis nag ci xol la sax. tey bu ñu nee euh, buñ la boo fi xeexee ñu vingt le mille euh, boo fi xeexee ñu arrêté leen marché bi ca marché bi fi ngeen di seen suturo fii la nekk donc c'est c'est forcément ngeen daal di arrêté li nga xam ne mooy xeex yi d'habitude xeex yooyu lan moo ko doon waral. xeex moom loo ko waral moom may maanaam état nii mën a ñëw toog nii nekk si jàmm nii kon ni ñu toogee nii mais su client ñëwee rek état nii kenn ku nekk waaye xëccoonte bi balaa nga war xam léegi-léegi nii. kenn du nangoo may sa morom dara da ngay waxaale sax nit di yàq ak di yàq di yàq njaabe sa maas ak affaire yooy noonu te suñu bëgg a paree bëgg xam ngeen ne loolu noonu o doo xam yow noo ko tuddee wax dëgg yàlla waaw yow loolu noonu daal mooy am lu sëpp maanaam ay xeex ay xeex daal jo foofu lay jógee daal lu sëpp maanaam daal client waaw su ñëwee nii rek waaw mais à part ça loolu moom dañuy dund si jàmm nii kon ni ñu toogee nii ni ñu toogee yendu waaw bi may doog ñëw dama ne fii dafa neex non seulement y a la paix mais aussi da ngay ree bay bëgg a dee euh, donc loolu euh, dañu on a l'habitude de le voir très souvent pour ñi nga xam ne dañuy faral di voyager da ngay gis boo gaaree sa oto rek vendeur à la sauvette yëpp dañuy daal di ñëw du ñu may sax kenn jaay sa morom te loolu euh, des fois mën na tàngal xol nee naa leen lépp ku nekk nag da ngay daal di jaay sa wërsëg mënoo jaay sa wërsëg jaay wërsëgu jàmbur donc il faut ngeen di bàyyi xel ci loolu bu client bi commencé waxtaan ak euh, nit ki commencé waxtaan ak client bi ñu daal di ko bàyyi moo gën a rafet. yàlla seeret na ne chaque deux jours client ñëw fi daal ne e booy yéen ñi ngeen di jaay baaxut chaque deux jours chaque deux jours. bu da ngeen di énervé client bi en fait. deux bi depuis deux mille vingt ba tey ah, noonu lay doxee ñun nañ ciy waxtaan mais mais daal dara dara nañ ciy waxtaan chaque jour ñu daal neew su nit jiitoo si client nañ ko bàyyi moom mais dara. be dara yàlla xam na ne bu ñu mag ñëw ñooy influencé booy ba booy ba dèjà ba dèjà benn oto bu taxaw dix personnes. nekk nee naa leen loolu dafay énervé client ba day dem. barke sëñ naa xam ne chaque chaque jour ah ab client ah énervé bu dem waaye mu daal ne yéen yéen ñi ngeen di jaay baaxul. ci pare ci pare ay dagg saaga ndey sax da ciy am ci daggal saaga nday client yi. client eh, client taxaw na fii nii daggaloo booy saaga. ah mais loolu tamit euh, da ngeen di comprendre client bi mais c'était incorrect moom client bi lu mu def. parce que nit kuy jaan dooleem je pense que euh, saagante nday waru faa am man personnellement bu nekkee nit ñi dañ may sëkkatoo damay préfère yëkkati sama vitre dem. fi ñu bëri eh, fi ñu bëri fii nii noonu la ñuy def dañuy eh, daan ne booy yéen ni ngeen di dundee dund sauvage la. ay dund sauvage la rek accéléré otoom dem. Ah, loolu c'est pas normal bu leen traité ti nit ñi de sauvage parce que ñoom it dañuy daal di daan seen doole ma dégg ne tout à l'heure am na kenn koo xam ne aussi euh, même bu nekkul victime ci li nga xam ne mooy gaal bi bokk na ci ñi nga xam ne fekkee nañu gaal bu teer ay nit décédé donc kooku bëgg naa ko également li Ahmed Kaay Kaay Ahmed Ahmed moom daa stylé de Ahmed yow la nga def dégradé wala Ahmed lan la dégradé. ah ñu daal di ñëw ci li nga xam ne toujours moom aussi fii la nekk euh, ci groupe de jeunes yi nee naa leen ñi ngeen fi gisagum ñëpp ay jeunes lañ te am na ñeneen ñi nga xam ne aussi feeñaguñu alors euh, tout à l'heure dafa mel ni dama force weewu béy ne fekki assisté nga benn gaal buy teer wala yow yaa dem ñaari yoon. non ñun nag dem na ñetti yoon mais nag demuñoo si gaal googu. dem ngeen ci gaal yi ñetti yoon. waaw mais nag nekkul bu teeroon fii si lañ dem. Mhm. yaa ngi heure yi vingt une heure vingt deux heures mu doon terminer sama jën quoi fekk man rek maa fa nekkoon sans comprendre te ma jaay benn client ba digg a waasal fii mais si laa si laa gis benn affaire gars yi di daw di wàcc si géej gi parce que comme man mas naa ko dund xam naa affaire yi fii am na lu fi xaw quoi ma wàcc si géej gi si laa fekk gars yi di wàcc si gaal gi fekk gaal gi xaar na ba gars yi am nañu féet ñëw si di ñëpp si à la fin si la police yi de kii débranché ñëw ñëw si gaal gi di xool di visite di foros téléphone ak yooyu waaw après si lan mujj kii daal ñu gis fa ay affaire yu métti affaire yoo xam ne yu doy waar am na ñoo xamante ni maa leen accueillir fii nii nii waaw teel leen takk ñu dem ma xam ne affaire affaire yu métti la quoi parce que ku dundaloo da yow mi nga xam ne victime nga dund nga dem si gaal yi ñetti yoon naka ngay dundee ci biir gaal bi boo leen fa nekkee parce que gaal boo xam ne quand même gaalu napp jën la ñu ñu ñu ñu nekk fa plus de cent personnes wala bu ko tolluwul aussi yegg na fa ah, donc gaal bu mag donc ngeen xat. nekk ci souffrance lan ngeen di dundee exactement ci gaal waaw day métti de mais ku nekk da ngay xam li nga bëgg rek waaw xam li nga bëgg rek moo lay togloo fu métti foofu noonu parce que na yow da ngay dem Espagne pour yeneen affaire yaakaar naa fu métti foofu dafa toog mais donc bëgg nañu toog fu métti foofu noonu am nañu bëgg bëgg a tëral suñu yaay suñu papa yi moo tax ñu foofu noonu danañ métti trop nag lekk yi du doy naan yi du doy mais tamit méttiwul lu yàgg te du métti góor lay dal te yàggul tamit est-ce que des fois damay faral di dégg ñu naan da ngeen di gis nit ñoo xam ne dañuy décédé documentaire wane nañ ko film ci cinéma joué nañ ko également def nañ ci ay reportage yu du jeex nit ñi di dee ngeen di tëmbal est-ce que yow assisté nga loolu noonu fekkee nga ay nit yi di dee ci gaal bi ñu dee di tëmbal. non man nag damay wax sama axulaa taalaa rek donc man métti métti yooyu dunduma ko yëg naa mais gis ma nit ku dee bañ tëmbal ko ci ndox mi donc ñun ñett yoon yi ci gaal yëpp dañoo retourné mosu ñoo dem ba réer wala mosu ñoo dem ba teer feneen li ñuy retourné wala. mbala ngeen joom mi si biir géej waaw loolu non joom yooyu mosuma ko dund parce que ñun bi ñuy dem dañuy préparer si yoon waaw. préparation yi mooy lan préparation mystiquement. oui parce que gaal ba fi dem gaal dafa nekk loo xam ne dafa yéeme. waaw même bu fekkee da ngay napp jën damoo damoo Espagne da nga war a préparer su bopp waxuma laa nag ba ngay dem Espagne. te si gaal goo xam ne plus de cent personnes yoo si nekk gaal day day diis waaw comprendre nga kon donc. nit ku nekk war nga mën a préparer sa bopp loo xamante ni après boo demee doo si jàngoonte benn problème. Hmm. te noonu si gën a tuuti bopp ñoom ñooy gën a gaaw a déliré ñooy gën a gaaw a. non boo gisee benn affaire di am ñoom dañuy dégg tëll rek na mata gi damm na naan gaal day dem sans ñoom ñu dem préparer ko ñu gis gaal gi dem ñëw yëg du noonu hmm. bu fekkee da nga oyof bopp rek da ngay dee si biir waaw donc kon gaal boo ko dëkkee. li li la sa waref mooy nga dugg si àll bi wala nga dem feneen ak feneen dem parpar si yoon ba xam yoon leer na wala leeru kii na wala kiiwul comprendre daal bu taxawaatoon tey di nga dem woy pareegoo ma de pareegoo nee ne barki maam sa Ibra Fall lan moo waral loolu lan moo waral nga am engagement bi nga xam ne da nga bëgg dem dem nga ñetti yoon marché wu nga bëgg a demaat euh, yaa soo gisee sama yaay li may dund wala sama waa gaale may muy dund man dëkk ma fii man Saalum laa dëkk soo ko sama waagaal lu ñu dul barki maam sa Ibra Fall da nga ma kon donc ñun fekk demuñ la duñu am jàmm. et tu ne penses pas que ne y a un moyen nan laa ko mën a waxee plus légal dugg ci gaal bi parce que boo demee tey peut-être mën nga ñaan sa visa ñu may la ko et cetera. ko may. tu penses pas. bu ko nekkat sa wërsëg dem nga ñetti yoon marché wul est-ce que doo tenter chance dem ñaan visa. waaw loolu li mën na nekk de mën naa dem ñaan visa mais góomuñu ma nag a wóor parce que moyen may yéegee si moyen bi may ma ko ñu ko fii ay champion ñoo fi fii ku ne fii ay ndaanaan ñoo fi liggéey barki maam Seex Ibra Fall ko loolu lampe ñu defar a yegsi ñun dañuy a liggéey ñu xam nga lii liggéey rond point bi aussi ñi dañuy taxaw fee di jaay jën barki maam serva oto jógee fii rentre lié si kaw bi xamul lu fa fekk ñaata ñaata ñaata nit li si loo xamante ni kenn xamul lu muy bindoo walaay la ajib donc fii ay champion dëgg ñoo fi nekk billaay walaay di dundee fii nii liggéey bi nu muy demee waaw liggéey bi di sant yàlla rek waaye di xamal la gars yi ne na de waaw métti na ba fu métti yem lan ban message en tant que en repêché parce que tey lu ne mënoon na xew ci gaal bi ah nga ñëw Euh, euh, euh, dundaat lii te ba pare doyalogoo nee nga da ngay demaat ban message ngay lancé suñu président bu bees bi lan nga ko bëgg wax. waaw mu jàppale suñu marché bi rek mu defal ñu ko quai de pêche comprendre nga comme ça ñun ñi fi mën di jaay jën quoi parce que ñun lii rek lañ xam. comprendre nga ñun amuñu beneen liggéey ñun lii rek lañ xam jaay jën kese. waaye sama mbaa ko Saalum Saalum nga ana Saalum Saalum géej tamit. waaw ñun bañ juddoo ba léegi ñu si géej gi nag loolu la yàlla bindee quoi ñun léegi si ndaw mi en tout cas merci beaucoup alors ba été carrément touchée bi mu waxee ne euh, situation bi ñuy dund donc dafa métien ay xale lañu mais xale yu am jom donc ñuy dugg ci géej gi yëpp euh, pour teral seeni waajur la pour rek euh, dindi situation bi nga xam ne ñoom la seen waa kër di dund da ngay gis xale yoo xam ne repêché nañ leen ñu dugg si géej ñu sauvé waat leen mais ba tey duñu doyal ah donc xam naa ne monsieur le président Diomaye bu déggee lii rek dina dina. na leen gëstuwaat surtout ci quai de pêche fii nii nga xam ne quai de pêche bu bees la defal leen ko ba muy nekk ay usine ndax fii mën na nekk ah, donc ñu daal di gis eh, gis nga damaa bëgg nga jëlal ma lee xool leen gis nga noonu la ñuy dàkkante ci ci ci ci li nga xam ne mooy oto yi voilà bu ñëwee dañuy lii yow borom jën ñi kaay waaw jën yi tamit. moo doon jaay nii nga woo. Ah. waaw tubaar fakal ma jën yi saf na ceeb nag. waaw yii boo ko amee da am ceeb yu baax. yow jën yi ñaar lañ koy jaayee. bii benn bu nekk huit mille cinq cent ba dix mille rek. sans dépend rek si waxaale. waaye jën yi cher nañ de. waa jën amul jën amul. Ah. waa day nawetal quoi moo tax instant ni jën dafa xaw a daw. dégg naa benn bi jaaykatu jën yi wax. waaw cest nee nañ boo nekkee si géej gi gis picc yi di di di wër rek xamal ne jën am na boo gisu picc waaw boo boo gisee géej gi euh, géej gi am ay picc yu sew yu koy wër di dugg si ndox bi di génnaat xamal ni jën mu ngi commencé am mais bu raaree rek jën amatul période bii nii nii jën day xaw a daw parce que day nawetal te bu commencé nawetal ni jën yi dañuy ajuwaat mooy loolu mool yi dañuy kaaye waaw dañuy kaaye. maanaam bu kaayee am mooy. maanaam kaaya mooy moo li dem ba jéeg jàpp tuuti wala duñ demee duñ jàpp dara. est-ce xam nga ne Papa Fally dem naa tourner at pêcheur ñu dugg ci gaal bi di nappi jën mais jour boobu géej bi dafa kaay ma am lu ma métti nag ndaxam xam nga man daa ragal ndox ndax dem naa dugg ci géej napp ba solu benn jën bu ndaw amuma ko loolu métti woon na ma trop yoon loolu da ngeen koy dund. gars dañuy dund loolu da ngay jënd sa essence cinquante mille nga dem ba jéeg doo jàpp dara barki yàlla da ngay jënd sa essence dem ba biir jéeg doo jàpp dara des fois nga dem xam nga bëgg a jënd jën doo am. fekk fa tuuti jën après yow da ngay jëndee lu cher looloo waral boo ñëwee yow da ngay jaayee lu cher boo jëndee lu yomb da ngay jaayee lu mais boo jëndee lu cher da ngay mën a jaay pour sa xaalis jéem nga am sa bénéfice des fois nga jaay nga per loolu lépp ci liggéey bi la bokk. yow assistante. waaw man la de gis na de. léegi man naa ñëwaat ci yow léegi yow lan ngay saan ban kàddu ngay gis nga ñëw accompagner ko. damay ñaan rek xam nga ñun ay jeunes lañ tamit dañuy liggéey di daan doole suñu yaay yaakaar ñu xam nga. ñu ñëw fii di daan doole ñu ngi ñaan état jàppale ñu xam nga ñu yóotu ñu ñu jot ko parce que aussi tamit manque de sécurité bu ñu manqué fii tamit dafa war a am lampe yi ngay gis fii dafa war a egsi fii xam nga même rond point yi ni ko defaree normalul ñun dañuy taxaw si rond point sa oto fekk ñu fa te instant bi ni ko defaraatee nii xoolal mooy loolu billaay. mais nag quand même quoi qu'on puisse dire du pour taxaw. non oto yi dañuy wëndeelu. non dëgg dëgg la mais day am jeunes yi ñëw si place bi fii nii di entraîner suñ paree dañuy taxaw di étiré wu aussi tamit accident am na fi ba ba taay am na fi village sérieux yéen lan bëgg ñu defaral leen ci rond point bi ay piéton maanaam rond bi dañ kaa war a waat ni mu meloon parce que essence lii nii mooy borom oto yi bu leen accident léegi ñun ñi fay nekk nañ dee loolu du yoon tamit xam nga. mais pourquoi ngeen choisir rond bi parce que rond tali boo gis dafa war a am rompoint waa si yoon loolu dëgg la. mais rompoint bi maanaam dañ ko waroon wàññi parce que dafa rëy. accident yi fii am dafa bëri. billaay. ñàkk ne euh, ñi nga xam ne ñooy gérer loolu euh, dinañ ci bàyyi xel mais aussi pour côté phobie yi du ñàkk si tali ngeen nekk dafa am ñoo xam ne euh, il sont mal intentionnés amuñu yërmande parce que man ñi nga xam ne dañuy joxe foo bi phobie ñiy liggéey man je suis si ñoom amuñu yërmande amuñu considération respecté wuñu seen bopp ndax boo leen respecté woon seen bopp doo leen def loolu nit ñuy jaay di daan seen doole ngeen ñëw euh, euh, di leen jox ay faux billets est-ce que loolu mës na leen arrivé. waaye loolu lu ñu fi dal bari na da ngay gis client boo xam day ñëw nga jaay ko valeur cinquante mille mu jël faux billet lal ko si suuf wala mu dugg ko si digg bi xam nga bu lay fay nii la la koy joxe yow da ngay bëgg xaalis tellement ko yow da nga koy jël rek. nga konte ko dangay yaa xam te ba dugal ko sa pochette te ñun bu ñëwee xool dañ koy lem ni dugal ko suñu pochette daw xoolaat beneen oto fii liggéey bi noonu la da taxaw nii téye jën bi da ngay téye jën mi nii di ko won client yi ana jën bi da ngay jën mi nii di ko won client bu taxawee nga jaay ko ko comprendre le fii ñun noonu la ñuy joobee comprendre des fois da gis client boo xam day ñëw gaare otom bu seer comprendre nga jaay ko jën ba pare mu ñëwaat mais bu ñëwaatee su ñëwaatee au lieu bu ñëwaatee au lieu mu jënd comme ni mu jëndoon de mais da lay jéem a juñ jaaj te ñun yoruñu dara bàyyi ñun suñ 1000 francs yi nii lañ teg bët ñoom ñu neek ay millionnaire jël seen. ñu dërëm nag. waaw mais loolu mais loolu du yoon xoolal ñun si naaj bi la ñuy taxaw fii fii la ñuy taxaw à partir de 9h wala 8 ba guddi di jaayante bàyyi pour mën a am dara yóbbu suñu gaale mais yow boo ñëwee fii nii xam nga nga gaare sa oto bu tooy di jaay jooma ñaaw boo jëndee boo pare. ne lebal ma bu ñu la lebalee nga daal di daw suñu xaalis. mais yéen tam pourquoi di bëgg di lebal ay mais xam nga comme li nga mais moom nu mu la gisee rek noonu la lay ñawale nit bu ñëwee won na la nit man nii laa mel yow noonu nga ko mën a jàppee bu ñëwee ne la jox ma jën bu ñëwee jënd valeur bu cinquante mille wala soixante mille xam nga ñëw defar noonu yow da ngay dem ba yow. da ngay gagné da ngay gagné sa confiance confiance am quoi léegi yow da ngay obligé bu ñëwaatee da ngay jël sa jën nga lebal ko ko comprendre nga moom day obligé dem boo koy woo du la jël. wala mu dugalal liste noire wala boo ko woowee mu lay jaan te fii ñun ñëpp barki Seydina Mohamed fii lu ñu yóbbu fii suñu xaalis ëpp na ay millions di dem billaay wallaay taala man waxuma la man kese de mais man ak samay morom ak. Sur le bouquet plus votre chaîne de tous les événements est au canal 218. Cette TV est également disponible sur le bouquet orange de la TVO au canal 10.